لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم ترسل برم سبحانه وتعالى في كل جسد من سأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم noonu musul ci suñuy bon boni bakkan ak suñuy ñaawtee fi jëf ñu ngi feeñal suñu bopp ak suñu doyat yi jëm ci suñu borom subhanahu wa taala bi yëpp ni la hawla lana wala quwata lana illa billahi al aliyi al azim borom bi day subhanahu wa taala moo ñu mën a kàttanal ñu am kàttan waaye moo ñu mën a baaxal ñu baax moo ñu mën a gindi ñu gindee noo ngi musulu ci suñu borom su waxtu wu ne su waxtu yi rawatina wii nu toll benn kàddu di génne ci suñu làmmoñ ci fekk defar lañ ci jublu woon kàddu ba di yàq ñoo ngi musulu ci suñu borom ci bépp waxtu wu ne ci waxtu yi rawatina wii nu toll benn jëfit di bàyyi ko ci ñun di yàq ci fekk defar lañ ci jublu woon wax day bariwaay ba du mooy tax mu am njëriñ ñeewaay ba it du tax mu ñàkk njëriñ waaye baraka la ak tawfiq ak leer bu yàllay sëmbërtal ci làmmiñu fiy wax ak noppi ñay déglu wax dooga am njariñ yal na borom subhanahu wa taala defal nu loolu yal na yàlla subhanahu wa taala sàmmal na sunu làmmiñ ba mu mën a bañ a jeng lu tolloog gaawaayu xef wala seytaane bi am cër ci li ñuy wax wala muy am cër ci li ñuy jëf bindab tay bii comme niñ ko baaxoo ci bis yi yu mel nii mu ngi amoon yéen a fàttalante wala sax ma ne fàttalante waat ndax bii mooy nangameel bi yoon ci tomb boo xam ne yàggees na cee wax waaye duñu dañ di ci wax ndax dañoo jàpp ni fi mu ne mënuñu si cee nopp tomb boobu mi ngi jëm ci mbiram ñi nga xam ni ñaari way dencante yi ñoo ko séq muy sëy nga xam day bii day buñ ma laajoon mooy ñaatal bi yoon ma di ci wax man du ma ko xam waaye nag fi ne sañuñ cee nopp semaine bi damaa toog ni ah jàpp naa ne tomb bii day ëpp na di bañ a wax te gëj naa cee wax ma ne kon semaine bii day alxamis bi kon fàttali bi ma nar a def ci daa koy def tey ci suba ma toog sama néeg di waajal daf ci suba yi kenn fekk ma fa dina jàmbat lu mel nii di wane ni moom sax dañ ko seetaan ko waxtaan fan toog juguguma ko am ku ma woo téléphone di sàkk ci ma nit may wax ci loolu ndax mbir yi mi ngi ëpp la ko am ku ma fa fekk ma di ko xalaat xalaat mu ni kon ñeenteel naa mbooloo ma ni gis leen gis kon nag yii yëpp benn bu ci nekk bàyyi ko ci ab jullit ko mbir mi nee na tut nekk tut neen ci laa jóg nag ma ne kon fàttali kay bi day dinaa ko def ci buntu boobu incha allah di sàpp ñu jëriñu ci ñun ñëpp li ma bëgg ñu tàmbalee ko mbokk yi mooy nañu delloo si waat suñu xel yi bu baax delloo ko ci yàlla subhanahu wa taala ci yëg ni sëy ak jaamu yàlla la ci biir jaamu yàlla yi ñu xam ni borom bi subhanahu wa taala ni mu ñuy laajee suñuy julli di ñu ko laajee suñuy woor di ñu ko laajee suñuy azaka suñu borom noonu la ñuy laajee suñuy mbir ci wàllu sëy ñene si bis nag ñëw ci biir wala ñu dem ko jàng xaani suñu borom ni ñuy laajee suñuy jaamu yàlla yi noonu la ñuy laajee suñu mbirum sëy àllaaxira bu leen fàttali ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kullukum raayi wa kullukum masulun an raiyati kenn ku ne sàmm la te sàmm bu ne dinañ ko laaj àllaaxira lim doon sàmm bokk na ci lam wax ne wal mar'atu raayatun fi bayti zawjiha wa masulun an raiyati jigéen sàmm la ci fa muy sëyee ak fa muy sëyal te des na ko laaj ëllëg àllaaxira nan la doon sàmmonte lam doon sëy xanaa yow mbokkum jigéen ñi doo yëg ni sa sëy bii ëllëg yàlla day day taxaw ak yow xisaab la laaj la ndax da nga doon sëy wala da nga doon sëyantu mbokk yi sëy ak jaamu yàlla gu màgg la gu rëy la gis nga si may jëflanteel muy sama borom kër du man maa ko def kilifa gi waaye yàlla moo ko def kilifa gi gis nga ni may jëflanteeg moom su ma bëggee noppal damay gëm ni moom li ko war ci man su ko defut kooku moom la ko yàllay laaj waaye yàlla du ma ko laaj fekk boobu bëgg naa mbokk yi ngeen yeewu ci bu baax ndax yàgg naa ko wax jiw sàngam waaw parce que moom moo def nangam moo nangam moo nga lim ay baat mani la jiw moomu ëllëg àllaaxira coow li du neex mukk ba yàlla woo la yow naan la lu tax sa jëkkër ji def loolu li ko wax yow loolu du sa problème concerné wu la yow loolu moom sa borom kër la concerné yow li la concerné mooy li nga war a def ci dikoo ko ëllëg yàlla loolu la lay laaj soo amul fekk nag ci buntu boobu da ngay jàpp ni moom su mu deful li ko war man du ma def li ma war moo ma wax ma wax ko moo ma lii ma lee ko déedéet ëllëg yàlla bu lay xisaab yow da lay liggéenti ca la nga moom ba noppi ne la puusal nga puus bu doog a woo sa borom kër ni ko yow lu tax di ko woon la la wax kon moom ñàkk def la ko war yow kooku bu mu téyee nga def la la war ñàkk def la ko war bu mu taxit nga yàq saw yoon ndax bis boo jàppee jëflante wootuma sama borom kër waaye maa ngi jëflante sama boroomu borom kër dama yaakaar ne mbir mi dama oyof mbokk yi su booba sama mbokk fàttali li kon damay fëpp fëgg ay bunt rek daal di koy sëpp nag ci ñee ñett tomb bunt yi ma sëpp lantaay gii ma jot a jàll ci la bokk beneen bunt bi mooy waxtaan yi ma ne si tënk lu bari ndax jotaay bi pour fàttali rek la yaakaar naa ne defoon naa ab muxaadara ci al muskilat al zawjiya al asbab al ilaaj kaset yooyu ku ko dégluwul dañ koy dénk bu ko mënee wut mu déglu ko ci làkk bi ñu nàmp lan ko def muy wolof te leer na problème yi am ci biir sëy yi mooy lan ak li koy waral ak la koy saafara ak conseil yi ñuy jox kenn ku nekk ci ñaari way dencante yi ku ko musul déglu boo ko dégloo duñ ko jëriñ ku ko dégluwaat doo nit mën nga koo dégluwaat amal na nga jëriñ yeneen bunt bi muy fëggaat jàll mooy détail bi bu leen jàpp ni dañuy wax rek toujours ni jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi déedéet dal sax muhaadara bii ma leen di wax bu ngeen ko dégloo dafa mel ni sax lan ca wax góor ñi moo ëpp lan ca wax jigéen ñi kon mbir mi ay jigéen la ñuy waxal buñ leen wax lan war a wax góor ñi place bu nekk lan ko war a wax la ma war a wax góor ñi buñ dajee góor ñi daañu leen ko wax yeneen bunt bi may fëggaat mooy mbokk yi ñu gëm ni kenn ku ci nekk war naa sédd ak ragal yàlla ci li muy def muy sëy ndax sëy kat jaamu yàlla bu mag ay mbir yu bari di ci mën a balloo yàgg naa leen wax ay jeexintal yi mën a def ci sa dund ci sa borom kër ci sa borom say njaboot yooyu nag boo koy xoolee suñu borom moom sëy wàcciwu ko ko fa waaye ak jaamu yàlla lan moo tax nga mën a am ragal yàlla ci julli ji am ragal yàlla ci woor ji am ragal yàlla ci bàyyi mooy ak def ay bopp waaye du ma am ragal yàlla ci biir sëy parce que kon dafa mel ni esprit séparé jaamu yàlla yi dafa nekk ci sama bopp bi lii mooy lii lee mooy lee lii lee waaye sëy nag dafa mel ni suñu problème yi àddina kese la waaye mbirum diine amu ci wàll fekk dañuy wut noona loolu bokk na ci nit ñu seytaane yi naxe yeneen bunt bi may fëgg mooy waxuñu bu benn kër sëy am ko amul ñàkk problème waxuma loolu waxoon naa ci waxtaan woowa ni kër gu ñàkk problème amut bu doon am kon kër yonente bi lay doon sallallahu alayhi wa sallam te këram moo ëppoon ay problème sax fas la ndax ay jigéen fa leen gënoon a dajaloo waaye nag dañu ñoom dañoo séddoon ak ragal yàlla ci seen i jëflante ak seen borom kër seen jëflante ak seen i wujj seen jëflante seen i goro seen ñam nekkal ba problème yi bu dikkee rek la ko mu jàll day yomb kenn ku ci nekk nañ bàyyi xel aaya bi sunu borom di wax ni wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha annafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almahwa sunu borom mi ngi digg àjjana waaye ñun la ko dig ki nga xam ni moom kat day toog ba mu yàgg mu xalaat ni gis dana ñëw man diw ñu xommat ma ko ci sama kanamu borom ni ma sëpp foofa ma taxaw sama borom yàlla wat ma atta an ilkabiri walsagir walkasmir li ma daan koon ci sama borom kër sama borom dana ma ko laaj sama sëy bi sama borom dana ma ko laaj sama jëflanteeg sama wujj sama borom dana ma ko laaj sama jëflante sama gor sama borom dana ma ko laaj sama làmmeñ ñi ma ko doon sàmmoo sama borom dana ma ko laaj lépp lu aju ci sëy bi suñu borom dana ma ko laaj comme ni may laajee lépp lu aju ci yeneen jaamu yàlla yim na sant ndax lii génn la day nga xalaat loola tax nga yëg ni ah man de ku defut la ko war man damay def la ma war ndax su ma wéetee man rek la damay dajeeg sama borom ma àtte ma lool bunt yi su ma ko fëggee ba noppi damay sëpp na ci ñett tomb yi ma tax a jóg sama diggante sama borom kër sama diggante sama wujj sama diggante ak ñeneen denc mooy say goroog ñi ko aju bu dee sama diggante ak sama borom kër xaat yu gàtt yi ma sa mën a wax mooy ñu xam ni kii ab sang la yàlla moo ko def ab sang kilifa la yàlla moo ko def kilif moo ko jox kilif ceeb bi moo bëgg waaxu ñëw takk indi ci kër di joxe dépense tey faj tey sonn kooku kon kilifa la yàlla moo ko jox kilifa ci ar rijalu qawamuna ala nisa lu tax bima faddala allahu baadahum ala baadi wa bima anfaqu kon kilifa la mbokk yi kilifa nag du mu rek laay waxee ak moom kilifa du nekk laay jëflante ak moom déedéet wallahi kilifa dañ koy hormal mbokk yi lim bu nekkul ci dëgg sax da nga koy ormal ba yar ko gis nga sa sa borom kër man or ci biir ormal mën nga ko yar ngal la waay fexeel ba sa borom kër ruus la bu la ragal de di di jëkkër ji dakaa ragal loolu du ndam déedéet du ndam amut sax amut sax chance baat bi sax amut chance waaye di jëkkër ji di ko ruus gis nga nit bu la rusee wallaay lu ne di nga ko am di nga ko ñaan lu mu amut sax mu ne la waaw te fekk ruseel gaa tax gis nga bu la rusee dina nar a def safaan ruuseel gaa tax du ko def gis nga bu la rusee ñu xamul fiqu sëy bu rusee ne dañ naan diw dafa ragal jabar bi fekk dee da la rus moo tax doomu aadama dafa war a fexe ba su nga bëgg jëflante moom jëflante ba neex fexeel mu rus la bu mu la ragal jarul ragal ndax ki la ragal bis boo fàggoo mu def lu dul loolu waaye su bu la rusee da lay sàmm di ngay teew sàmm la boobu teew laa sott kooku kilifa kooku du nekk la ñuy waxee ak moom du nekk la ñuy jëflante ak moom xataa même bu juumee sax moom ni mu lay jubbantee boo juumee du bokk ak ni mu koy jubbantee boo juumee parce que kilifa la te it bul fàtte ni nag yaa sëy si yaa sàkk si barke yaa jur si ay doom kéemaan gi nag mooy nekkate li ëpp ci li ma leen di faral di wax ñàkk sëyu safaan sëyub safaan dafay jural nit ci safaan ci àddina balaa mu yegg ca àllaaxira nee naa leen mbooloo mi dañ naan ñun day nañ sant yàlla ndax xam nañ sunna ndax nangam nangam ndax nangam nangam ma ne man day sun ñun de laa gën a ñee sax suñuy doom ndax ñun lu bon bon suñuy yaay yi suñu xamul woon sunna xamoon nañ sëy bu baax waaye suñu doom yii may seen xam naa baat dina saa su ma koy wax dinaa ne mbokk yi danañ yëglu leen nekk ci seen xol parce que wax ji dafa dafa dafa dafa métti waaye lu métti métti na faaw lu wax ko ndax doom boo ko cëppatiwul doo ko teg sunu doom yii may seen te xaar doom ci rek ak seeni doom yërëm naa leen lool wallahi li may wax maa ngi koy tibbee ci xol di tibbee ay kàddu yërëm naa leen trop ndax li ma gis njàng may ma ko expérience may ma ko mooy li may seen muy ñunux ñunux bu dëkk dëngu sa kanam ëllëg suñuy doom danañ ñu xas parce que seen yaay dañoo sëyul woon li kemtalaay li ngay góorgóorloo ci sa sëy kemtalaay baraka bu muy toppee li nga nar a dund wax naa ne yàlla ba muy tudd wal baladu tayyib yaxruju nabaatu bi idni rabbi walladi xabuta laa yaxruju illa nakidan xool bi baykat bi jiw bi ñett yooyu la ñuy boole mbay mi doog a am waaye sunu borom tuddul baykat tuddul jiw bi xool bi kese la tudd parce que moo ci ëpp solo moo tax mu ne jigéen ji bu sëyee sëy baax day génne meññeent mu am ngeen bu sëyee sëy safaan nag ah yàlla moom ko am fulla la mu bàyyi doom yi rek ñu nekk doom yi waaye waaye kon kooku résultat la buy feeñ fii ci àddina sëriñ ba dafa doon jàngale am ñaari taalibe yore daam jàngal leen ba taalibe yi mokkal bi mokkalee ñuy ñibbi kenn ci nag lakkal sëriñ bi lakkal ko lakkal ba lakkal bi jéggi dayo ba sëriñ bi bañ kenn ci tarbiyul sëriñ bi ba sëriñ bi kontaan ci moom kenn ku nekk te ñoo bokk benn dëkk la ñuy ñibbi fi nga xam ne moo gën a lakkal sëñ bi sëriñ bi ni ko tàllal ma ñaanal la mu tàllal mu ni ko soo demee yàlla na la yàlla wërsëgal soxna su baax bu baax bi jéggi dayo ki nga xam ne moo gën a sonn ci sëriñ bi sëriñ bi ni ko yàlla na la yàlla may soxna su bona bona bona bona bon ba jéggi dayo xisa bi may nitil lu am la du ay léeb déedéet xam ne am na moo tax ma di ko nettali xanaa yéen de su ngeen di dégg da ngeen jàpp noon safaan bi la sëñ bi waroon a ñaan ki gën a baax ñu ñaanal ko soxna su baax ki gën a bon ñu ñaanal soxna su bon déedéet ndeke ñoom luñ doon def rek am na suñ ko teg ah kon nag nag ba nga ñaanalee nga di aani ñu leen ñibbi seen dëkk waaye fuñ toll rek ñaan daal di seen xel ah ki gënoon a lakkal sëriñ bi toll si xàkk soxna ñu may ko soxna soo xam ne ni mu taaroo ni mu baaxee ni mu nangamee fab mu daal di say yem nag ndax boo yoree soxna su baax lu ci ëpp sa saat beneen da lay jafe fab mu yem sa ba pare nag yàlla nag ko ko am njaboot ci gënoon a baax ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko yàlla na nga am soxna su bon ba bon di dégg dayo mu toll ci takk soxna yàlla wërsëgal ko ku bon ba bon di dégg dayo ay mbokkam gis ni mbon gi jëmus ko ñu ne ko nañ nga takkal keneen faf mu takk keneen am dajeeg ku baax takkaat keneen dajeeg ku baax takkaat keneen dajeeg ku baax am ci ay njaboot nag lu bare bare bari ba ñoom ñaar yëpp ñu xëy nag màgget kee benn jabar la màggetaale ak tuuti ay doom moo tax ceraa ngay àddina moom yàlla mayu ko ci dara kee nag am na soxna su bon waaye am na yeneen i soxna yu baax am na ay njaboot yu bari njaboot yi ku nekk tekki kooka ci yàlla noppal dañ dikkee ziar sëriñ bi ñu ne ko sëriñ bi ñun di fàttiwuñ suñu ñaan ko waaye jaa xam ne dooñu ko tekki la mais damaa xam ne ki ma gën a lakkal yéenewuma ko lu baax bi muy dem te bëggumaa ñaan lu bon moo tax ma ñaanal ko soxna su baax su ma ko ñaanalee day day day yem ca kooka du bari njaboot kon teraanga yàgg di ko am dara ndax sama xol sedd sama ah borom soxna su baax dina ñu ngi ko damaa kontaan ci moom te su ma ko ñaanalee soxna su baax te lay yem te du bari njaboot te yéenewuma ci loolu ma ñaanal ko ku bon ndax xam naa ne ku ko am di nga bari ne te soo bari lee ami njaboot kon nag nekkate jigéen ak baaxam dafay def jeexintal da def jeexintal sax ci ko jël safaanam ci nit daal am naa sama mbokk moo xam ni su góorgóorlu la incha allah ndax sunu zonna bi góor gi dafa yor ñaari doom ku góor ak ku jigéen ku góor ci dafa jàng jàng te lii may nitil nag sax sax luñ teg bët la nag moom ku góor ci dafa jàng jàng ba amal na man mii di wax sax mën na maa raw ko waaye saay saaya saay saaya saay saay ba saay saay bi jéggi day baay ji ne jëriñ na ma ni fii li koy xam-xam bi mu jàng jëriñ na mon teg yaayam moo rogal ab day ci moom sama mbokk ma waaye ci xëy benn bis nar koo may doomam bu jigéen ba doom ji jigéen bi li ko yàlla dénk ci xaar ak ay moyen àddina ndax ku yàlla teel a ubbil la mbokk mi di ko xereñ moom it di ko bàyyi ji ci jamono yàgg na bu am ko waxee loolu xëy xëy benn bis ni ko dama laa bëgg a may diw nee na ma fexe ba gàntal ndax lu tax damaa ma sa xor ci moom mu ni mbon fekk yaay jii wóor na la ni moo rogal ak ba xam-xam jii jëriñul ko góor gi ñu ni kalaa xamee ni kon boo moytuwut monte yaay ji dana rogal ba laal ko jigéen kon su ma ko taxee fonk dama ma ko nekkee ma ne ko yow yow santal yàlla ku ku ku ku xam fekk nga yow santal yàlla xisas yu mel noonu yiñ ci mën a joxe bari nag trop te yu muy dund lay doon li ëpp wallahi léegi da ngay xam rek ci te yàlla kontaan dafa def ni nag li ëpp ci jeexintali safaan yi am ci doom lépp du bàyyi koo ci bàyyi lii moom mën naa ko def sama seetlu bopp li ëpp ci safaan yi am ci doom li jigéen daal ci góor daal ci yem nag lépp du bàyyi koo ci bàyyi ci doom ci yaay lay bàyyi ko kon day bàyyi xel sama diggante sama borom nga xam lu gàtt gàtt gàtt bëgg naa sax njaboot bi ma xam bari incha allah xanaa ci jagaatal kon mbokk yi nan leen yërëm njaboot gi ñu góorgóorlu def santaane suñu borom amaale ci bénéfice ndax suñu ko defee kat danañ jur lu barkeel waaye danañ am ngërëmal suñu borom fii ci àddina sama diggante sama borom kër bokk na ci li gën a sonal jigéen ñi mooy yow da ngay yore soxna yoraat soxna soxna si li jëm ci man ñi may jëflante ma gis ma gis kooku sa yoon nekku ci kooku problème boobu fa xaw nga bàyyi ko xel ndax man maa la tax sa kaat bi sa kaat bi sa kaat bi waaye ku ne li may jëflante ak moom kooku sama problème la maak moom loolu faw ngeen ma xolu si faw ngeen ma xolu si dafa am loo xam ne yow sa yoon nekku ci dëgg la su ma jàddee yoon sañ nga maa jubal si su ma juumee sañ nga maa laay bi waaye nag pourquoi muy def lii pourquoi muy def laa déedéet sa nga néew ci loolu yow ni may jëflanteeg yow yow laa ko war a jëflanteeg ni may jëflanteeg keneen ku ah da ngaa bëgg léegi ni may jëflanteeg ma di ko jëflanteeg keneen loolu mënul nekk nit ñi bokkuñu yemuñu bokk na ci problème yi indi ba nga dégg jiw maanduwul ak jiw daa yemalewul ay soxnaam fekk aha yàlla sax yemalul ay jaamam da ngaa xamul loolu dama ni yi nga xam ne l'islam waxu ca dara da daan noppi say sañ-sañ la yow ku góor gi yaa ngi am sañ-sañ dama ni man ñii di wax am naa poos fii ci ndeyjoor am poos ci sàmmoñ am ñaari poos ci yére yi am sama dix mille francs su ma neexee poos bu ma neex laa koy dugal denc ko ñu am naa ci sañ-sañ da ngeen a wa fàtte da ngeen a war bañ a fàtte di jaawale yi nga xam ni borom kër sañ-sañ la ko ci yàlla jox lu ko ci neex lay defee sama soxna yii ma yore sañ naa jël li ma neex denc ko ka ma ca neex mayu ma ko ko de sañ naa jël li ma neex wax ko ca ka ma ca neex yoonu kenn lañ ci loolu nit laa xaj wax ci dara dëgg la nag nit ki lu mu mën di mooy ci ndikku yére yii jur fitna na ko def waaye déedéet pourquoi muy def nanga ko te pourquoi yi boo ko di jàngat ba ci biir da ngay gis ni góor gi li mu def sañ na ko am na yoo xam ne yaa ko moom yow ko góor gi lu la neex nga koy doxalee yoonu kenn nekk ci côté boobu faw nga noppalu ci su ko defee nag li ëpp da ngay gis koo xam ne pourquoi muy lii pourquoi muy laa da ngay dem ba dañ koy misère di ko xalaat te fekk yaa ngi battaa ci loo xam ne di juum ak a yàqu la ci loo xam ne doo ci am benn ndam ci sa kanamu borom nit ñoom ñi xam saxu ci wax sama diggante ak sama borom kër islam dafa mën a ma am ay soxna nga bëgg nit ñëpp ñu bokk yem ci xol loolu mënul nekk yow sa bàyyi sa yaay sax yemuñ ci sa xol farat yi nga am ñun ñëpp yemuñ ci sa xol sa mag yi nga am ñun ñëpp yemuñ ci sa xol yi ngay jëflante ñun ñëpp yemuñ ci sa xol sa yére yi nga am ñëpp yemuñ ci sa xol sa matériel yi nga am ñëpp yemuñ ci sa xol ah xamut lenn loo xam ne lépp day bokk yam ci xol ku góor ci kon soxna yi mu yore ñun ñëpp nga bokk yam ci dama ne loolu ku la wax ni mën naa nekk wax na lu amul li ñuy wax nañ waxante ni mën a nekk xam nga luy mën a nekk mooy góor gi bu yore ay soxna xaw mu am koo xam ni xolam dana ko gën a bëgg loolu nag islam dama na nëbb ko bu mu tax nga jéng bul séddale ëppale bul naan waaye nag bu lu ci amee nag lu ci amee problème lay jur lan mooy nday ma jël la jël kee jël kële jël kële ñu war a njëkkante pour tey déedéet du ma ko def de kenn ku ci nekk yaa ngay bëgg nama lii nam nama lii ak nama laa dañ koy liggéey rek dañ koy liggéey buntu bu gudd la te defe naa waxtu waa ngi ndax su ma ko toppee buntu boobu dana jël lu bari ma jàll ci ñaareel bi sama diggante sama wujj alam nga bëgg da ngaa bëgg sa borom kër leen ci yow ko digal keneen xaw mu am xaw mu nag xaw mu nag xaw mu nag laa wax bu dee yërmante yërmante gi ñuy wax ak dimbalante gi xaw ku góor ci am ay soxna mooy jigéen ji ne da ñii ni jii ni bëggul borom këram wut keneen nag pour man du sëy kat lii parce que nii la wër ndax ñu ne wut jiw bi xàll nañ ko sa jikko su ñemee na ñëw su ñemee na ñëw yow kay sa diggante sa borom sa diggante sa borom kër góor góorlu melal na nga war a mel sa saa bokk la njëkkante bala muy am faw am fii taxaw kee taxaw faw njëkkan njëkkalante foofu lay am li leen ma dégg góor benn jabar naan man kay sama soxna si lii daa daa ma ne ko dee teel na di naan la la suñu mbokkum pël ba waxoon sëy seet bi sëy bi amagut une semaine mu commencé di fàgg rek di wax rek ñu ni ko ah gaaw nga de mu ni moo gaaw ma gaaw bu yeex ma yeex waaw wax na dëgg de moo gaaw ma gaaw ah seet day ñëw rek tàmbali accéléré yëpp yi mu def mu ni mu gaaw ma gaaw bu yeexantal rek may ma yeexantal gis nga gis nga olof yi dañuy léegi yëpp bu am solo benn soxna boo ko yoree bala nga xam jikkoom dëgg dëgg dëgg nga wut gis nga jigéen ko kéemaane la ni karaw gi guddee noonu la ay pexeem guddee mën naa indaale am li jikko leen ko ba denc ko ci néeg bi rukk boo xam ne doo ko gis dañ koy wutal wujjum mel ni fitt bu ko taat lan la la lu xew yow kay wóoluwoo sama kon ñu léew kon mënoo tëye bokk na ci xekma yi tax yàlla wut wut wutaat wutaat dañoo bëggoon ko góor ci bu borom këram amee ci moom ñaari fan wala ñett wala ñeent dem aye ji feneen balaa julli soog fekk nga waaj xana xaar noonu waxee ma amal xeer xeelax di xalaat man fekk sama ay ji passé def naa ci erreur sàngam kon du ma dalaat ay ji passé ka doon naa ci nang préparé waat di nga yàlla xakim la ku feeñ la lépp lu mu def rek xet maa nga ci yaag moo waral aaya bi bu nekk muy tëj bunt bi yaag moom kese jigéen nga xam ni kumpa rek la bañ nag nga dem aaya ji feneen tëj bunt ba xamut noo nekkee xamut loo fanaanee xamut loo réere xamut lu ngeen fa doon wax gis nga loolu bu boo dikkaatee da ngay fekk waa joo xam ni dafay gaaw yàttam di wut lu la neex lu tax parce que mi ngi yaakaar ni lim defut lépp keneen ka ca des def na ko yàlla ko fere na xakim kon li war mooy sama borom kër ak soxnaam see sama yoon nekkul ca ñoom su ma bëggee ma xol même bu ñu séqee ay wax sax du ma ca dugg sama yoon léegi xam nga du ma sox sox ko sama diggante ak yow góor gi am ful la ju doy ne bul nangu kenn di la wax sa morom ma bari na góor yoo xam ne seeni kër jaxaso na te ñoom it nag ñoo ko jaxas bul nangu kenn di la wax sa fekk def dara amal ful la ku ko wax jànni ko mun ko di ko xam nga ni ñu koy waxatee bi jànni ko jànni boo xam ne da nga ci rus ruseel goo xam ne ëllëg dina ñu may waxaat waxi jàmbur kon point boobu ci xaw ñu bàyyi ci xel la ma war naa ko def naa sëyee na ma war a sëyee gëm ni kii maag moom sama borom laay jëflanteel moo ma sant ma def nangam moom bu defee la ko war xayrun bu ko defee xayrun ah góor nag boo yoree ay soxna kenn ku ci nekk kenn sa laay ku nekk na muy sëyee rek na nga koy jàppee nag bari waa na problème yi ak boo ko seetoo ba ci biir ñiy sëy dañoo xamul seen bopp waaye ku xamoon boppam jàpp te la ko war def la ko war diggante ma sama borom kër tey rafetal di yéene lu baax jëm ci sama borom kër damaa gëm ni kat yàlla mën na laa defal di di nga ci biir kenn yi kenn mënu koo wax ndax kat da ngay gis jigéen boo xam dafa sàggana sàggana sàggana sàggana sàggan ba nga xam ne lu ko war diggante ma borom këram sa xamul góor na day kulle góor day kulle bokk na ci yi yàlla tax mu yoonal ay soxna nangam ci boo ko nanguwee def sa morom def ko benn baaba màgget ndeysaan màgget ci benn soxna daa woo sama benn xarit ni ko na ngeen fexe ba bu leen màggetaalee benn soxna boo bëggee alko rek def ko mu ne ko maa ngi ni gis sama njaboot gaa ngi ñëpp màgg te jubóowu maag seen yaay seen yaay ngi dafa sëpp sal xale yi ci man fi mu ne nii may wax ak yow damay bëgg a naan sax may may sama bopp ndox ndax xale dañoo faral seen yaay loolu nag boo amee ay soxla du ko déedéet góor benn golo jabar rek la ay soxlaan di taxawaan ay góor ñaar ñett ñeent ak déedéet boo santaane bu ñu dëkkut rek def dañoo ñu ne dañoo def sax parce que loo xam yow bu waa fekkee dañoo waa lambaay nag doo bañ xaw na def lii bokk na ci xere yi di tax yàlla yoonal ay soxla beneen bi ci def moom dund ak buur ngay dund nag dund ak buur ah soxna si bu xamee ne moom dong moo fi nekk ci géej bu la jàng ne doo am ku la neex bu ko tut kenn du góor bu tëggut ah kon kenn du ko neex lay def waaye bu ko wóoree ni fi mu nekk ni lu yee xam talu keneen tas ko def su boobaa yee xam talu dutul am kon yàlla xere ni gi mu def moom xam na yow nag xëy na li nga bëgg mooy def yàlla li mu bëgg ci amee comme boobu li nga ko war a wax bari na lool buñ ko toppee waxtu yi gën a jeex sama bopp ñetteel day gën a gàtt waxtu bari na lu sama diggante bi ma fekk ñaata ci ay coup téléphone laay def ci ay mbokk ci nangam nangam dem ba ñi nga xam da ngay dégg ko man de su ma naree nekk sulit jaral na ma sax dem seeti yeneen sulit nekkee sulit te ñoom waaye duñ suyee parce que jikko yi ba ñu la jëflanteeg ñoom dem na ci kër gi dem ba ay xuloo ay nangam maa ko romb du ma ko nuyoo yow yooyu amoo ci amoo sañ sañ ak nit ki mun la man ci def te ñëw ko romb doo ko nuyu faa dama ab julit la ma dama ab julit la da ngay gis koo xamante ni day dem du yow mën a dëkk sa bàyyi jëkkër mën a dëkk sa yaay jëkkër yow boo ne ma ñu ngi moo tax nag damaa toogam yàgg ma ne man de ñu ngi jëflanteeg mbokk yi man fi ne maa ngi ciy jàng te mbokk yëgunu ko ndax li ma ciy jàng mooy njëkk ci jigéen ñi daal ñii nu mel noonu lañ mel ak seeni jëkkër noonu lañ mel ak seeni goro noonu lañ mel ak seeni baay ak seeni yaay fekk boobu laa ci am ji koy jëflante ak am solo mënoo fexe sa alal ji ñëpp def ci waaye sax ji ko ju rafet man xam naa ay mbokk yoo xam ne dañoo ne seen kër fan ba bëgg a tuxu am seen kër yi bopp seeni famille yi déedéet sa jabar jënd dem takkal keneen bëgg waaye seen dem lu tax parce que ñëpp ñoo kontaan ci moom mu ne ma ngay ma ngay jibat ma ngay muur ma ngay def la ko war yii leen dara manqué wu ci te kenn ku ca nekk ma nga la jox cër ba nga xam ne ñoom ñëpp seen bëggut mu dem man lii gis naa ko man boo xam ne dañ naan ko dama gàcc beneen nga yóbbu ko sa kër jogal tànk waaye fii moom du dem déedéet da xol yi sax da ngay jàpp ne dañuy farfarloo ci sa biir soxna fekk déedéet dama ni ahsin ila nnaasi tastaabir qulubahum rafetal jëme ci nit ñi seeni xol nekk say jaam nit ki yàgg naa am jaam yu tudd ay xol te fekk rafetal moo la ko may waaye gis nga boo ñaawale yëpp di la muul yow yan la nga gudd fan ndax da nga gudd fan sax est ce que di nga gudd fan sax ndax laaj mi yooyu mën naa am bëgg am dara faw nga rafetal jëme ci nit ñi kenn ku ci nekk jox ko sërëm sukk bi nga ko yóbbu tey oo déedéet waaye sunni la yaa xam sunna yaa nangam tax na loo neex ngay def déedéet kon buntu yi mbokk yi nañ ci bàyyi xel ala ko daxaa waxtu yi gàtt na gàtt boo xam damaa jàpp lees ci bëgg a tënk lépp mënta nekk waaye li ci gën a yitteel tënk bu mujj bi mooy mbokk yi nañu góorgóorluwaat ci sëy yi problème yi bari na de gis bu ne li ngay jot ci coup téléphone li ngay jot ci ay wax ay nangam ak te boo ko xoolee ba ci biir da ngay xam ne nag fondement ba yëpp ñu ngi tënk ci lii may bëgg a wax mooy ak ragal yàlla nag moo def ci biir sëy yi boo ragalee yàlla ci julli ragal yàlla ci nangam ragaloo yàlla ci sëy bi gëmal ni lii ci jaamu yàlla yi la bokk ëllëg yàlla dana ko laaj su la ko laajee nag na nga fexe ba sol tont na nekk lay war hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi waaw man day jël léegi daal di doon salaamaaleykum comme moo ci yokk ni ñu ko traité nii léegi kenn ku nekk waajal boppam seen ay xarit yu ñu leen sax bu leebaatee ci léegi ay choix lay nekk yéen yéenay waaj kenn ku nekk xool nga gisee tey dee lu sax yow mënoo laal sax leen sax leen bu ko defee incha allah mu daal di koy leer ñu gën a war a wax bu gën a yaatu parce que jëm presque comme origine incha allah waaw incha allah